Euh, de Cheikh Yérim Seck alors euh, Cheikh nag moom itam boobu tey mi ngi amal li na xam ne que moo di ay révélation am euh, jëmale si ponk actualité yu ko gën a fasantiku ki na xam ne que moo di Cheikh bu si mujj bi yëkkati nay kàddu ni moom Ousmane Sonko na ko bàyyi du ko menacé maanaam di ko daal di jàpp na itam bis bu jot mi ngi jot ay menaces ki na xam ne que moo di Ousmane Sonko ginnaaw bu Ousmane Sonko daal di yëkkati kàddu que ni képp ku daal di bëgg politiser exactement affaire Casamance bi yoon ak war a des na daal di dal sa kaw waaye itam des na daal en prison alors rien euh, tout d'abord quand euh, yi nga Ousmane Sonko yëkki na ko et consort jàpp ne ni du moom moo ko war a wax di gémmiñam la war a euh, ku ñuy tëj ak vous êtes d'avis Oui, mais xam nga déjà bu n'y attaquer attaqué loolu rek ñëw rek wax hmm. ci kàddu yooyu bëgg orienter le débat uniquement sur ça hmm. te une analyse globale par rapport à son discours bi mu commencé waouh xam nga loolu tamit day am importance parce que ma gis presse bi ñu bëree bëri bi automatiquement ci waxu li mu wax waxu prison la ñuy focaliser wu

ci cadeau mi de la. Hmm. maintenant nak ce que j'attendais moi là la retenir par rapport à l'intégralité hmm, du discours de Ousmane Sonko là la si retenir. man je ferai peut-être je ferai une analyse objective par rapport à ça. c'est la d'accord ak la ma d'accord hmm. yàgg naa ko certes parce que Ousmane Sonko nit de comme ñun ñep ñun ni ñi juumee non lay du yalla du yonent du Malaka loolu nag jàpp naa ni war nañ ko mën a nangul nit ku ne mën na taxaw si meeting wax ba ba kii bi jeex du ñàkk ay dëng-dëng wala ay rëcc rëcc parce que loolu laa noonu laa ko yàgg waxee. Mm. man yàgg naa wax ni à quatre-vingt-dix pour cent am na loo xam ànd naa si ak moom mais à dix pour cent léeg-léeg am loo xam si ay discours am du ma ko du ma ko nangu ah parce que ni ma ko doon bañee démb itam noonu laa koy bañee tey Ousmane Sonko ko tenu euh, véritablement un Euh, bu nga xamante ni boo ko analyser globalement balaa ñu ñëw si loola wax na si li ko yëtteel. lu ko hmm. gën a yëtteel mu di jàmmi Casamance. jàmmi te jàmmi Casamance nag jàpp naa ni doomi réew mi yëpp la war a yitteel parce que ñun ñëpp xam nañ li xew sa qui se passe dans le monde actuellement dans ce monde ci il am na ay réew yoo xamante ni walla ay gox yoo xamante ni ci am réew la ñu bokkoon tey ñu ngi taxaw di laaj seen ay indépendance te am na ay grande puissance yu leen ñu leen di accompagne ñu leen di jàppale ca loola. Mm. tey boo demee diggante Chine ak Taïwan lu tax neexatul. Mm. parce que jiiñ nañ ni américains yi ñoo nekk si ginnaaw di leen manipuler pour jaxase leen pour ñoom ñu demander seen ay indépendance. Mm. xam nga loolu tey bokk na si li gën a ñagasal diggante Chine ak américains yi tey Palestine be problème mu territoire la Palestine ak Israël problème territoire la. tu as boo demee France kii actuellement nii débat yooyu mi ngi soulevé wu boo demee Russie. Russie ak Ukraine la mooy seen problème problème mu territoire problème yu mel nii rek noonu la déclenché woo moo tax nag jàpp naa ni c'est des discours dangereux dangereux yoo xamante ni war nañ ko bàyyi muy prospérer wu dans ce dans ce pays là. Mm. Ousmane Sonko depuis toujours man commencé di ko suivre donte nag c'est un originaire de cette localité là mu di Casamance mais discours bi mu tenir démb discours boobu la mës a am. mooy jàmmi Casamance. jamais Casamance donte nag jiñ nañ ko si nii lu dooleel rebelle yi rek lay wër sanctionné wu fi lii condamné wu fi lii nangam nangam nangam et cetera loolu kon jàpp naa ni c'est un aspect très important bu ñu war a souligner deuxième cas bi mooy kaawu Yirim Seck hmm. balaa ñu ñëw si élément prison parce que il faut ñu def une analyse buy voilà buy buy toppante quoi ñu juger le point A jëm le point B hmm. ba la jëm le point Z mais waruñu jógee A rek dal Z bëgg a Z dal C léegi nag la mu wax daf ni problème mu Casamance kenn waru ko def une matière politique di ko politiser. Hmm. xam nga loolu ñun ñëpp war nañ ko d'accord en commençant par moom waru ko def une matière politique kenn waru ko def une matière politique loolu la njëkk a wax bi nga xamee ni que am nañ ay xibaar yu waree ni am na ab tubaab bu bind ab livre bëggoon ko ñëw fësal fii ci réew mi buy wax ci indépendance su euh, Casamance. Casamance autonomie. ñu loola ñu gàntal ko dédicace booba avant loolu Cheikh yirim Seck toog na ci point de presse ñëpp di ko dégg lan la wax. am na ku fi waaj indi benn livre. autorité bi santaane. dafa wax ni am na ku ko santaane fii pour ñu bind livre bi ah loolu la wax autorité bi santaane pour ñu bind livre bi. Hmm. tey mu ñëw wëlbatiku changé waat ay parolam delluwaat ginnaaw complètement ah, dafa daw. lan la wax. dafa ne. Euh, euh, dane moom la mu wax daf ni. Fallou Bayal ma wax la li mu wax. affectation wu général kande ku mu teeyul sa xel moom tey na xelam est-ce que loolu la waxoon démb est-ce que Cheikh Yérim Seck loolu la waxoon démb jàpp daa ne bu dee loolu kase kase kase kase ku ko si dugal kaso di nga ko tooñ mais waxul woon loolu li mu waxoon wax naa la ko léegi te bu la neexee mën nga déggaat vidéo bi est-ce que yaa ngi dégg. Hmm. kon Cheikh Yérim Seck. dafa delu ginnaaw bu baax par rapport ak propos yi nga xam moom la teniroon démb bi mu àndeek booyam yooyu booyu tuuti yooyu ñoom mm. Abdou Nguer ak ñooña mm. boo yooyu mu toogaloon <laughs> xam nga Abdou Nguer wax naa ko nee na moom Abdou nee na ma fi bu baax <laughs> eh. Abdou Nguer nee na mm. Ousmane Sonko dafa am ay xaram yoo xam bu yuuxoo rek ñu ni mbee mais yéex Cheikh Yérim ay bëyam la yor ay bërëm yoo xamante ni bu nee nii rek ñu ne mbee hmm. est-ce que yaa hmm. mooy ñi nga xamante ni aujourd'hui daf leen di manipuler bëgg leen dugal ci xeexam moom dugalu leen ci xeex pour réew mi de mais ci xeexam moom Cheikh Yérim Seck il faut ngeen comprendre ni moom dafa am xeexam moom bu muy xeexal boppam léegi nag bëgg a manipuler booy yi parce que booy xam na ni booy yi aujourd'hui am nañ une presse euh, une présence médiatique mu bëgg a wékku ci booy yi bëgg leen manipuler ne leen voilà je suis le chef ñew len ñu xex je suis devant non mouvement leen essayé mais mouvement anti Sonko ña fa nek ñep Abou Diallo mi togul sa plateau bi ne mom songko. Sonko kooku di ko woowee société civile da nga mësa gis ci ben plateau bu Abou Diallo tok apprécier bu du moins bu Abdou Nguer tok apprécier daray Sonko mu baax ak mu bon mom day lam rek sànni ci mbalit bi kooku mën na la wax société civile yow nga gëm ko est yi que yaa ngi dégg. Hmm. de même les autres dañ nga see mës gis kenn ku wax nii ah Sonko de lii mu def tey baax na xanaa Sonko ba mu fi toogee ba léegi ah au moins nag xanaa lu bon bon bon bon def na benn lu baax est-ce dégg moo tax nag ñoom dama leen di lancer benn message d'alerte pour dimbali leen parce que xam naa ne dañoo réer mu ñoom Abou Nguer dañoo réer. <laughs> est-ce dégg. léegi nag dama leen di dimbali pour wax leen nañ def très attention à ce monsieur là mu di Yérim Seck da leen di nax. mais si naka Yérim Seck moo toog si plateau ñëpp di ko dégg pas plateau sax seen point de presse booba. Hmm. mu ne am Ameth am Ameth Ndoye dañ koo dindi ci base de données ba. direction des extrêmement grave <laughs> Fallou des propos extrêmement dangereux tey policier bi defar attestation bi waxul nga dégg ko. li nga l'observateur dem Fallou nee naa la je par jour damay lire dix quotidiens par jour. wax na kay yow xam nga si dara samay quotidiens yi nii chaque jour damay liir bay bëgg a dee chaque jour. Mm, mm. yow gis nga saag bi may indi fii tey benn émission laa am tey moo tax indiwuma saag bi mais gis nga saag bi ma fi indi dix quotidiens dina si nekk par jour lépp laay lire dix quotidiens kon li may échappé bariwul. am na quotidien yoo xamante ñu ay quotidien yu favorable régime bi mais ni ñu traité information bi rek wan na ni ah kon Ahmed Ndoye mosuñu dindi permem ci base de données bi te pourtant Yérim wax na loolu am kii ñëw accompagner loola la euh, euh, Nguer ñëw dooleel loola la ce que ay dégg des propos extrêmement dangereux tey Abdou Nguer bu toogaatoon fii boo ne ko delluwaatal si la nga waxoon day daw waxet si li mu waxoon ci point de presse bi wàqat lay def dootu si jaaraat mukk dootu si jaaraat mukk bay laa mi diin parce que xam na ni foofu dañ koo nax xam nga léegi lan lay jël comme ali bi mm. amee ndooy sama xarit la sama doom ndey la nangam ak nangam ma ma si ma ànd est que bu ma àndeek moom ci oto wala bu ma nee ko am nga permis mu ne ma waaw la laa si mën xam nga amee ndooy déjà waxul sax dëgg il a menti à ses proches là waxu leen dëgg. Mm. te xoolal lim leen fi mu leen naroon a dugal bu ñëwee ne leen am na permis amul permis tax ba tey Cheikh Yérim jël dossier bi ne day porte plainte police Abdou Nguer xaritam ñëw taxaw di wax xoolal ni mu leen naxee lépp ñu bëggoon koo jiiñ nag régime bi Ameth Ndoye fan la tollu régime bi ba régime bi war a def ay pexe pour nërmeel ko fan fan la tollu régime bi fan nañu waxante dëgg rek te yàlla tax Ameth Ndoye fan la tollu régime bi ci menace ba régime bi war a def ay pexe pour nërmeel ko fan dañuy waxante dëgg rek de dëgg rek jàpp ne des euh, ay position est-ce que c'est supportable dama ne position ban menace la ci kaw nguur gi ba nguur gi wara jël dolem def ko ci ambandoo pour neurmel ko loolu moy la grande question moo nak gis nga quand on se revendique d'être un chroniqueur xam nga luñu wara ñëk def hmm. di jema di fexé de def une analyse objective objective Ahmed c'est un journaliste. un hmm. chroniqueur un animateur. mais en tout cas kuy wax ci presse bi la ñu dégg analyser la situation géopolitique. à ce niveau là hmm. c'est un dossier très important. Hmm. pourtant je préfère que nous aussi. aussi... après suñu coloré bu Casamance bi exactement waaw loolu tam euh, ci Casamance bi la parce que dama la doon wax Yérim moo génnoon waa si page yu ki nga xam ne que moo di Cheikh Yérim euh, bi mu lancé Ousmane Sonko ni na ko préparé si la force nu ko rëbës exactement nekkul beneen genre défiance contre jëm si ki nga xam ne mu di Ousmane Sonko waaw mais day day day day kii quoi xam nga souvent on le dit day euh, waaxu. est-ce que Ousmane Sonko non non non non na ko war na ko mën a déterminer exactement. non xam nga ba tey waaw dama ni. xam nga man yàgg naa la wax fii. justice nekkul ci yi Ousmane Sonko. Hmm. justice nekkul ci loxo yi Diomaye Faye. est-ce que yaa ngi dégg y a certains propos yoo xam man musuma ko nangu te du tey laa koy nangu. Hmm. lépp loo xam dafay ñeel wàllum justice kooku nañ bàyyi justice mu def liggéeyam. donte nag le premier ministre a toutes les informations tey mooy ministre bi nga xamante pratiquement moom lañ dénk lu bari ci loxo dina xam lu bari mais am na loo xam bu ko xamee sax ci wàllum yoon ah au nom de la séparation des pouvoirs war na mën a bàyyi yoon mm. addu ca loola mm. réew mi ñëpp xam nañ ni am na ay sàcc yu fi ne am na ay délinquants financiers yu fi nekk am na mm. ay crimes financiers yu ñu def ñëpp xam nañ ko on n'en disconvient pas parce que amoon na ay rapport yu fi ñu fësal ak wane. Hmm. kon man su ma sañoon sax même Sonko man su ma sañoon yenn question yi sax dootu ci développé parce que li muy wax sénégalais xam nañ ko xamal na leen ko bañ xam ko ba pare. jaratul sax di revenir en arrière donc des fois dafay juum di évoquer exactement. waaw non man dama jàpp ni waaw man maa jàpp loolu. waaw moo tax ma ne xam nga sànq sama commencement wax foofu laa wax. day juum comme ñeneen ñi. am na yenn dossiers yoo xamante ni. waroo sew non waa waa waa mën na ci maandu. alors c' est maandu ci day gën daal. alors c' est clair mi ngi naan par rapport ak euh, li nga xam ne que moo di justement diggante Cheikh Yérim Seck ak ki nga xam ne que moo di Ousmane Sonko alors ñu daal di ñëwaat itam si benn ponk euh, ginnaaw bu nu mel. Euh,